yëkkati na sénégalais yi du yéen ak may déglu ku ne na làmb moromam laaj ko laaj wi ndax yow mii ab sénégalais nga tribune yéen kaay ne ma déet day leer kay na ku ne laaj sa morom ndax ab sénégalais nga su ko ko laajee ba noppi na ko laaj foo ne bu dee sénégal nga nekk nag tribune naan déglu ma waaw kay mi ngi doog a neex tëgg baara mbay baa ngi doog a am ndaat saay ministre des finances ma ne la ban senegal nga nekk yow Mamadou Moustapha Ba tribune yéen kaay nan kon yàgg ngaa jàdd koñ waaye bii moom dafa daal di doy waar jéggi dayoo yow saa boo xëyee wax waxi croissance saa boo xëyee wa waxu senegal boo xam ne mi ngi ñoŋ Sénégal boo xam ne neex naa dundee neex a faatoo fa yàllaahu yàlla na yéex senegal goo xam ne ma ne la coono dafa ñoo teggeeku Sénégal goo xam ne lépp mujj lépp naay Sénégal goo xam ne dara seeru fi Sénégal goo xam ne institution yeek koom gi daal maar day taali daal xel dal na ca yéen kaay bi dee média bi naan kon Mamadou Moustapha ba ban Sénégal nga nekk xanaa du Sénégal goo xam ne taxi yi mi ngi daal di tegu ci ndoddu consommateur gi waaye jëfandiku ci réew mi di dund jaxannama goo xam ne mënee su ko ko wax yow kay booy wax neel Sénégal daanaka oxygène moo fi manqué nooy askan wi foo toolu danga koy dégg ndax sonn rek ndax daw bay bëgg dee ndax coono àdduna goo xam ne nguur gu tële moo ñu ko teg tey ji yow mi nga xam ne yaa jiite wàllu finance gi nga ni lan Sénégal a ngi dox Sénégal goo xam ne ngir nga am ñetti doomu pend naari ndékki añ reer jaxannama la yow Mamadou Moustapha nga ne fiyey dox tribune naan kon ay ah, yàlla baax na yéeni kaayib des médias bi naan man en tout cas ministère de l'économie Oulimata Sarr daal Ousmane daal di bàyyee duudu Kane ak ay projet yu am solo la ci koom gi fukk ak ñett ci réforme yoo xam ne daanaka day joyanti juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci convention lu toll ci junni juróom-ñeent fukk fanweer ak ñetti milliards ci xaalisu réew mi ñu dugal ko fa juróom fukk ak juróom ci projet yu PPP lu toll ci ñaari junni juróomi téeméer ci milliards ñu daal di ko fay def turbine yéen a kaay naan kon terewul réew mi nit ñaa ngi xiif ñi ngi mar ñi ngi rafle les fa yéen mel ni ku naan duudukaa nga naan dugg naa ci gém bi mu mat xëyug ndaw yi léegi ñu daal di ci wutug saafara njëkk cher yi it saafara croissance économique bu réew mi ma ni la dees na ci utug saafara barza barzaq gi moom fas nañu yéene mu dakk fa yàllaahu coonoog sénégalais yi nga xam ne ñu ngi koy jàmbat bés bu yàlla sàkk bëgg nañ ko dakkal sénégal mi nga xam ne bokk na ci réew yi nga xam ne seen avancement daanaka bu kàkkatar la duudu kane day dakk ndaw yi wax xëy subaa ngoon guddeeg bëccëg day dakk moom suñu bopp ci wàllu koom daal fas nañ yéene amal ko ci réew mi daañu saytuwaat financement yi jàppale FONGIP FONSIS DER 3FPT ak ADPME ndax duudu naan loolee mooy tax koomu réewum Sénégal ñu mën ci dugal suñu loxo te buñ ci dugalee suñu loxo mën koo joyanti l'observateur naan maan en tout cas àdduna wërngal këpp moo ami jafe-jafe rawatina nag ci wàllu koom turbine yéen kaay naan kon moo taxit boulanger yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi nee ñu mburu moom fukk faaw ñu teg ko ci yéen kaay dee média bi nag samp laaj gouvernement bi nga xam ne moo ne woon day xeex njëg yu cher yi anamu gouvernement goo xam ne saa bu leen askan wi soxlaa ñu ne péccet daw wal fu ko dijee naan ko déet fi mu ne ministère bu commerce nee nañ ñiy lakk mburu ma la mburu du yokk ci réew mi ministère du commerce ne leen seen yokku mburu googee ngeen bëgg tegu leen ko ci benn norme xool kay seen teeyaayu bakkan ne da ngeen di xëy xëy yokku te yokku googee ma ne la du am ci réew mi tey du fi am ëllëg Dakar Times naan maan joxante lenge yaa ngi mel ni tulleeg màlle ci réew mi Thérèse Faye naan jël naa lenge waaye fi mu ne sama mbébét mooy lenn fexe ba senegal daal di avancé Serigne Gueye Diop ci l'évidence yéen kaay naan man candidat la waaye avancement Sénégal fi mu ne moom ma ñor yéen bi naan maan bu commune bu Sandiara dalal xelu waa Sandiara yëpp tey jii moom mooy dagaan baatu réew mi ko Quotidien naan kon waxtu woowu moom Ousmane Sonko ci boppam daal soobu waat ci xiif gi Vox Populi naan kon day jàppale détenu nii nga xam ne daal dinañ leen di jàpp moom Ousmane Sonko waxtu woowu L'Enquête Quotidien naan man ca Casamance yëngu am na fa ndax agent judiciaire bu état bi ci boppam daal dinay deltu ginnaaw ci coow li la mu bëggoon engagé Ousmane Sonko ba atteem gi daal di tàbbi géej daal dina ciy deltu ginnaaw tribune yéen kaay naan kon en tout cas la ma waxoon rek fi mu ne daal nu ñu dojuwaatee ci nguur gi la ñuy xool waaye jooyante askan weeg seen i jafe-jafe taxu leen jóg la voix sud ne déglu ma xam nga ci jamonoy Abdoulaye Wade am na fi ancien ministre boo xam ne dafa andi woon ab mercenaire jëlee ko Afrique du Sud andi fii ci réew mi te objectif bi nag moo doon mu faagaagal président Macky Sall mercenaire boobee ba mu deltoo ginnaaw ci contrat bi moom lañ bëggoon faagaagal daal di koy téye ci réew mi gannaaw ba mu woowee Félix Zale jamono joojee Félix Zale day moo jiite woon rédaction bu turbine te jamono ba dee média nekke ca corniche ba ne boo ma jàppale boolewul ñu Fatma Fayallaahu moom Félix contacté ministre ba ministre ba ni ko déet ñun koy pexe bu ñu dëjee président Abdoulaye Wade ci nguur gi la ñuy wër naka laay def ba lii du génn Félix ne ko lenn rek na waa ji deltuwaat réewam waa ji deltu réewam daar daar laata muy am ñaari fan Félix ne ministre boobe tey jii maa ngi koy gis muy rogo jeeru président Macky Sall wër ko ndomb ba maar day taali te buñ ko laajee waxam génn la moom moo di fexe ba président makki Sall mii du ñàkk nguur gi léegi yan pexe la ñuy def ba du ñàkk nguur gi moom mooy coow kaay bi naan maan xaayaan ku dégg séeréer président Macky Sall mii bu dee day ngoy ci nguur gi naka la ciy ngoyee Félix naan kon président Macky Sall xoolal sa entourage vox populi naan maan en tout cas parrainage yi moom mi ngi wéy ngir Amadou Ba ca Pikine ministre maire ba Isaaxa Diop soobu na ci campagne ngir jàppale Amadou Ba woo militant yi nag ñu daal di tàmbali goo gee ngir jàppale Amadou Ba Walf Quotidien naan kon parrainage citoyen nga xam ne Ousmane Sonko moom la bëgg Amadou Ba bëgg ko ko mbaa du doon ab barrage ci ñi nga xam ay outsider Cheikh Abdou Mbacke Baara Doli bu coalition nekkal askan wi ne man candidat laa waaye parrainage bii ma ne la mënuma caa ñàkk wax am na nag ab projet de loi boo xam ne déposé naa ko diggante article cinquante sept alinéa quinze ak seize ba dañoo bëgg nag képp koo xam ne da ngay soobu ci parrainage nga defub caution képp ku nu jox parrainage la ñu sàkku ci yow amoo ko nga ñàkk caution ba ndax nag loi bu yees bii nga xam ne tëgg nañ ko ci assemblée nationale wote ko kenn ci ñaari téeméer ak fanweeri candidat yi nga xam ne jël nañu parrainage ba bu làqu woon yàlla yàlla tere fa yàllaa wu rek élection présidentielle dañ koy dàq ba jëmmi jamono Cheikh Abdou Mbacke Baara Dooli daal di ne moo tax it attention de la voix du sud ne attention de élection présidentielle daal mën nañ ko dàq à tout bàyyi leen ko xel yéen sénégalais yi tribune yéen kaay naan bàyyi leen xelit géejawaay of nag ma nga tàmbalee audition yi ngir xool nag témoins yi déglu leen ci suuf soose nga xam ne ña ngi koy daal di caxat-caxatee libération yéen kaay naan man maam jaara juufi directrice des loisirs ca ministère du tourisme bu Mame Mbaye Niang taxawal na programme loisir pour tous activité yoo xam ne sénégalais yi soxla nañ ko ngir fàtte waaye tam soob seen bopp ci loisir yoo xam ne mën na leen andil nooflaayu xel réew mi quotidien daal di may xamal ne moom président Macky Sall day ma ngay wax coow la ca Israël ak Palestine le soleil yéene kaay naan maam sàll kay ma nga naan coow li loo ci manti dee git ngànnaay ci boppam faju ko libération yéene kaay naan maan luy faj askan wi saafara gi la ñuy laaj ndax nag ñetti xale yoo xam ne ci lycée la ñu bàyyeekoo ñoom la benn tracteur daal di jaar seen kaw ca taset ñu daal di faatu faatu gu metti moom sàndarma ba da koo arrêté